ausu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaani rahim sama euh, tey jii nag sama émission bi may def tey may laay biire maa ngi ko jëmale ci diggante tariix muy këru turux tariixa waaye nag maa ngi tànn diggante tijaan ak murit tijaan kër maam Maodo Maam Alaaji Malik ak murit kër Cheikh Ahmadul Xadim dama am lu ma soke tuuti te sax du tuuti dafa bari loolu mooy dafa mel ne duñu ay jullit ndax xastante bi metti na saagante bi metti na waxante lu ñaaw li metti na bari na tamit te nag xul àq walaw kaana murran kaccat ci laayeen kaccat ci xaadir kaccat ci njaasaan kaccat ci ñaseen kaccat ci cene ba nangeen ngeen ci génnee diggante Touba ak Tivaouane toujours pour lan pour lan léegi nag bu ñu waxee ñu ne xale yi ñoo bëgga a indi ci biir tarixa yi loo xam ne mus déedéet dama koy lànk dama koy lànk xamul tax naar bu ndaw lu mu wax olof dañ ne ca naar bu mag ba la ko déggee kenn ku ne ci noonu li nga xam foofa ay maga la wax muy kër yëpp bu fekkee ci yaan bi la la mu wax ca murit ya ci ay mag la ko déggee bu fekkee murit bi la la mu wax ca tijaan ya ay mag ci la ko déggee ma jàpp ne nag lu mën a saafarawu la deux mille vingt deux mille vingt bi ñu nekkee deux mille vingt bi ñu nekkee lu mën a saafarawu la xam nga xalifa général des mourides mooy Cheikh Ahmadou Mountakha bu caaxaan jeexee kenn yëbu ko kenn yëbu ko mais même chose Serigne Mbaye Mansour noonu bu fekkonte ne ñu bu mel na Xaadim Njaay taxawee attaqué yoonu Seyti Tijaan mooy yoonu maam Malik kilifa yi ci yoonu murid woo ko ba mu ñëw ñu dij ko mu diju ñu ne ko li nga wax foo ko teg Xaadim Njaay di xaan xaan di xulliku ñu ne ko li nga wax foo ko teg muy wax ñu woo yoon yoon jël si ko duma ko noppi kilifa di taxaw ne ko li nga wax santuma la te ta waxu ko ci bi sa bopp nga ko waxee nañ la bàyyi sa bopp toroxal bam ne topp su liggéey du bu fekkonte ne ab tijaan moo wax attaque yoonu murit wax ci wax ju ñaaw sëñ Baye sëñ Baye Mansour ak njabootam woo ko diggu ci seen biir saal télé rajo yëpp dikk taxaw ñu ne ko dafa yow li nga wax ci sama kër maam Xaadimu Rasuul lu tax nga wax ko. mu naan nii ñu ne ko ñu la ko pour mu leer si mun taxaa leer yoon mu di gépp sant ñu ko léegi nag na yoon li nga la yoon jël def li ci war sama ne yaa xay si kon coow li jeex waaye déedéet doo ko dégg mukk dañ naan pat est kon li ñuy wax da a neex lu dul rek nga génn nga sa micro waaw loolu laa sant ñu leen ko mbir mi kay nangam nangam ñun benn lañu déedéet dañ koy jëf boo waxee sa wax ju ñaaw dañ la xas la ci kanamu Sénégal yépp ba noppi nga tuub ko ci kanamu Sénégal yépp bañ xam ne tuub na ko ba noppi nag jëbba la yoon wallaahi bu nga defoon benn yoon. du doo dégg kenn ku taxaw ci rajo bi wala ci télé bi wala ci Facebook bi wala ci YouTube bi di xas benn tarixa bu mu bokkul mais man duggal ci site internet bi xool sama vidéo sama émission mësoo dégg mu tudd tarixab jàmbur wax ca benn moo bu ñaaw li tax amal mun gën gore waaye nag ngeen bàyyi xel ne nit day wax li ci xol bi wax li mu gëm wallahi mbir mi nema ne la du léegi lu yàgg la lu yàgg lu soq ko fu sori parce que xam lu tax dañoo xam ne xinda diina inda lahi jën jenn diina la yàlla reconnaître muy diina islam en même temps yàlla ne wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ñun ñëpp ñu maasee ne loolu def nañ ko loolu doyul ñooñu ni quoi ñun ñëpp bokk benn penku bokk benn benn bokk julli juróom bokk ajandoo màkka bokk weeru koor bokk ndo sakaat amul xaj ak seen ñun ñëpp ak jullit lan jullit boo ci ŋàññi ba léegi nga ndaje màkka alxuraan tarixa ñëwu ci su bëggee dégg dëgg alxuraan tariqa ñëwu ci waaye léegi yow mi nga xam ne nee kër maam Maodo ak kër Seex Ahmadu Bamba génn kër la lan moo tax bu taalibe maam Maodo génnee ci kër maam Maodo dem kër borom Touba nga ne ko danga torox yàqu nga danaa la def nangam da bàyyi naa la ëpp nga laaxira waaw mais kon xam nga ne li nga wax loolu kat gëmul ko ah ki génn si kër maam dugg sa kër maam na naqari la nga ci nu ne nga wax koo ci ba di ko ci tëkku lan moo tax murit bu génnee ci yoonu murit dem nekk ab tijaan ay mbokkam nañ ko bàyyi nañ ak nag alaxira da nga yàqu dutoo baax ah kon tijaan baaxul lan moo tax lan moo tax murit amul sañ-sañu dem nekk tijaan tijaan amul sañ-sañ dem nekk murit boo ko defee rek te boo paree ñu ne yëpp benn la seen maam yi nangam nangam te kilifa yi nga xam ne nag ñooy wax loolu ñooy wàññi ko waa di la naq di ko naqarul ak di la xul ak wala kaana muran dëgg yàllaa ko moom gi taxaw nañ lépp benn la moo wàññi ko waat yow mi nga xam ne yaa yaa jóge ci tarixa bi dem ko tarixa bu la soob mu lay tëkku di la ñaan yàlla say mbokk fañ la gedd la yaa xam tarixa boo bokk te ñu ne lépp benn la lëndëmal xelu doomu aadama yi gis ngeen wax leen ni ngi ni mu demee ñun ay jullit lañu bu fekkoon ne ñu ne bu murit bi jógee ci yoonu murit dem ca tijaan ya murit dina ko ah yow kat wax dëgg def nga lu rafet jógee nga ci sama kër maam dem ci sama kër maam yàlla na fa am yiw ak tawféex ak taysiir yàlla na fa am ngërëmal yàlla nga ne bravo